koor gi metti na mais gis naa ne génn ngeen tatagal ñu kon mënuñu leen a romb te yëkkati wuñ ay kàddu nuyu leen di leen jox nuyoo président Ousmane Sonko di leen jox nuyoo Bassirou Diomaye Faye di leen jox nuyoo coalition Diomaye président di leen wax élection yii di ñëw dañ leen di ñaan ngeen jëli seen carte te wate massivement ñu gagné ko premier tour. parce que nag ñun patriotes yi suñ demee élection ak kenn deuxième tour man na am ndam li parce que nag ñooy Sénégal kon maa ngi leen di ñaan ngeen génn ngeen wate bu baax parce que nag Macky Sall dafa téye Ousmane Sonko téye Diomaye Faye pour bëgg bàyyi Amadou Ba mu wër réew mi ndax sénégalais yi jënd leen su yaa ñu wate loolu nag dañ ko lànk da koy nangu wala du ngeen ko nangu kan ngeen àndal kan ngeen àndal kan ngeen àndal jëma Sonko mooy jëma